LVD TV, la voix du Ndiambour. du Ndiambour. Nous sommes en entraîneur en coach yeeg Nous sommes ñi sotti gàllaaj ñëpp génn nañ si Ndour ak Mor Kankam ndeysaan Malick ngay wax ak ñoom Mor Kankam moo ñëwoon ginnaaw si Ndour la ñu jàkkaar loolu moo xaw a sut si Ndour moo xaw a ëpp yaram waaye ndax moo ëpp loolu ñu jëflantee léegi nañ ci wax ak ñom nee na sifflet moo leen boole sifflet moo di tàqale ndeysaan arbitre baa ngi wax ak Mor Kankam ak Youssou Ndour ndeysaan laaj na ay Ziza Ziza pare nañu Youssou Ndour parana Mor Kankam nee parana pare na ndeysaan na combat bi ndeysaan ey mbokk yi Malick sifflet na combat Kankam ak Youssou Ndour 22 h quart ndeysaan stade bi kenn demul xaar Mor Kankam ak ngay joxe latéral Mor Kànkam ak Youssou Ndour ña ngay joxe latéral ndeysaan Mor Kànkam ak Youssou Ndour dafa mel ni combat bi dafa nar a gaaw Mor Kànkam Youssou Ndour Mor Kànkam ak Youssou Ndour ndeysaan ña ngay leewtoo Mor Kànkam Youssou Ndour ña ngay leewtoo ndeysaan ndeysaan Mor Kànkam wan ginnaaw Youssou Ndour lañ jàkkaar lool Mor Kànkam ndeysaan moo ngem moo ngemu lu bula jël wax teg ci kawam pied gauche la di jël ndeysaan bi nga xam ne nii moom Desan, Youssou Ndour moom it pied Desan, la di jël ndeysaan ñaari xale yaa ngi ci ñaari kawa yaa ngi ci ndeysaan waaye Mor ki nga xam dafa jël loxo bi aj ka sa kaw kaw kaw kaw kaw ndeysaan Mor Kang Kang ak Youssou Ndour Youssou Ndour nanka nanka di dox ci koom Youssou Ndour da ngay wut si ko Mor taxaw na ñaari xale yaa ngay léetoo xaw a yéex léetoo bu a yéex yaa ngay léetoo ndeysaan Mor Kankam Sunduur a ngay dox si koom Sunduur a ngay dox si koom Sunduur a ngay dox si koom Mor a ngay arrière Sunduur a ngay dox si koom Mor a ngay arrière Sunduur a ngay na eey Sunduur ak Mor Kankam Sunduur Mor Kankam ndeysaan Sunduur ak Mor Kankam Modou jël na ko Modou jël na ko Modou jël na ko ndeysaan eh xeex nañ léegi gënat Modou Kankam Youssou Ndour ndeysaan Modou Kankam ak Youssou Ndour Modou Kankam Youssou Ndour ndeysaan Modou Kankam Youssou Ndour ndeysaan Modou Kankam Youssou Ndour jël na ko jël na ko jël na ko jël na ko lu mu koy def la ilaha illallah Youssou Ndour rasu na Youssou Ndour rasu na Youssou Ndour rasu na ndeysaan Youssou Ndour rasu na mu ngi koy plaqué Modou bañ na mu ngi koy plaqué Modou bañ na Youssou Ndour ak Modou Kankam ndeysaan Youssou Ndour ak Modou Kankam sunduran kay dor sunduran kay dor sunduran kay japp jàpp na ngembal sa ginnaaw japp na nga ma ngay dóor Sunduur ngay dóor Sunduur ngay dóor Sunduur ngay dóor Mor Kankam sunduran kay dor sundur dugal na bopp bi suuf sundur Mor Kankam Sunduur Mor Kankam ndeysaan sundur Mor Kankam ku nek am nga sa ngeen morom wala Mor jàpp na sundur jàppul fen sundur ngay dor sundur ak Mor Kankam sundur Mor Kankam ndaysan sundur moñu sundur moñu wan ginnaw ndaysan legi Mor lañ jakar lol sundur ak Mor lu Mor bëgg Mor daa bëgg bëtt wala jël nako waye sundur da mel ni ku xaw a ak Mor bëtt nako Mor bëtt na legi waye sundur Ndour sundur Ndour daa diis door na ko tànk door hey Laila ilaha Laila la Desan illallah ndeysaan ñaara xëy léegi bëri bu reñ ndeysaan muy Nour ak Mor Kankam avertissement pour kan Mor Kankam Mor amna ben benn avertissement arbitre bi la waat na legi. ndax bi arbitre bi lee Mor Kankam da ko dor. Youssou ngay dox kom. kawam ngay dox kom. kawam ngay dox kom. Mor Kankam ak Youssou Mor Kang Youssou Ndour mu koy dàq ña ngay xeex Youssou Ndour a ngay dóor Youssou Ndour Mor Kang Kang jàppante nañu jàppante nañ ay loxo Youssou Ndour ak Mor ña ngay xeex Youssou Ndour ak Mor ña ngay xeex Mor jël na ko Mor jël na ko waaye Youssou daa diis Mor jël ko mais dafa diis dafa diis dafa diis ndeysaan parce que ñaari yoon ah. Mor ku ma na dëgg la dëgg la mais def na ko deux fois mais tey day bëre day bëre mbër boo xam si keneen mosu am mbëru mel nii waaw ah. naa ne ah. combat bi na jeex donc mais Ndour bu la ndaanaan la bërekat la day comprendre loolu ndeysaan waaw yaa ngi ci ba léegi ñaari ak Mor Kangam Mor ñaari xalé yi jàppante nañu kenn ku nekk nee nga tekki degul sama rom Youssou Ndour am na ngemb sundur ak Mor Kankam so so ngay dor ngir musiki so ngay dor ndax musiki musiki ak Mor seen combat xamona du yak waaw waaw noonu la demee musiki ak Mor combat bi mënul yomb du yomb déedéet ñoo xass xass lo dëgg la

moo moo nga ca ardo ba moo da ngay dem ardo moo da ngay dem ardo ndeysaan Youssou Ndour da ngay wax ak coach bi Youssou Ndour da ngay wax ak coach bi mais Youssou Ndour mi ci combat bi mu ngi ci biir combat bi ci combat bi mu ngi ci combat bi xam nga mu dem ci biir bàyyi mais instant mi ci combat bi waaye dafa mel ni mu ngi yëg fatiguement nag fu mu toll nii ah moom laa bëggoon wax kon gisoo ko mu ngi yëg fatiguement mi ngi gën a ji bu baax mu ngi yëg fatiguement lamb dafa métti dafa nga ngebatoo di nga nooy bu baax lamb kenn mënu koo entraîné noonu la fa demee nag ndeysaan loo entraîné entraîné boo leen jàppante rek boo leen jàppante mu feeñ Ari Bangay ngay nyom, ak angmor Naisan. ak Mor Naisan. Naisan. ak Mor ndeysaan ndeysaan arbitre sifflé waat na ndeysaan Youssou Ndour Jakar ñu Mor Kànkam mo ñu wan ginnaaw mu ngay doxale taraar moom Mor Mor kaka ma ngay doxale taraar Youssou Ndour dalul ak Mor ak Mor ngay doon na ko léegi benn gos waaye dalul ndeysaan Mor dugg si garab bi fayu na Mor fayu na Mor jël na ko Mor jël na ko Mor gis na ngay xeex da xeex da ngay xeex jël na ko jël na ko waaye su daal diis su daal diis Mor jël na ko waaye su daal diis ndeysaan jàppante nañu ñoom ñaar jàppante nañu ñoom ñaar ndeysaan Mor Kang Kang bëggul xeex bi Mor Kang Kang bëre bi la bëre lay wut si waaye saa bu dawee dem gis nga da koy teru jël ko Desan, suñu ra ngay dóor suñu ra ngay dóor pour mu siggi suñu ra ngay dóor suñu ra ngay dóor waaye ràcc na bu baax nak moom Youssou Ndour ah rajj na dafa rajj bu baax dafa rajj bu baax mo ra ngay fayu Mo ra ngay fayu soo ngay dor mo ra ngay fayu Youssou Mor Kankam Youssou Mor Kankam Desan, Balla Gaye nga ne le Desan mom Balla Gaye fu mu daa taxaw benn place ndeysaan jaxle làmb dafa métti moo da ngay fayu gisoo ngay dóor moo da ngay fayu léegi Youssou Ndour lañu jàkkaar lool Mor ki am moo ñu wan léegi Youssou Ndour moo ñu wan ginnaaw Mor ki nga xam la ñu jàkkaar lool ndeysaan moo da nga koy bëttal moo da nga koy bëttal moo da nga koy bëttal moo da nga ba da ko yenu laa ilaaha dafa diis dafa diis daan na ko dafa diis dugal si biir Youssou Ndour ay waay Youssou Ndour naanaan la. Youssou Ndour a ngi noonu ndeysaan. ndeysaan Youssou Ndour a ngi noonu. Youssou Ndour a ngi noonu ndeysaan kenn du moom daanaan la. kenn du moom daanaan la ndeysaan. Youssou Ndour a ngi noonu ndeysaan. waaye maa ngi gis Sa Thiès. Sa Thiès noonu Youssou Ndour a ngay jooy. Youssou Ndour. xam na ma xam. Youssou Ndour a ngay jooy ndeysaan. ndeysaan Youssou Ndour a ngay jooy. Ndour ngay jooy Ndour ngay jooy Fils de Balla ndeysaan Fils la nga ngay jooy ñoom ñaar ndeysaan ña ngay ñaar billahi balance ngay ñaar balance rek ngay ñaar